lim gu takku ci ay étudiants ñoo amal ab xiifal ay jigéen ak i góor yu bokk ci promotion 5 université virtuelle du Sénégal ñu woowee UVS ñoom nag ña nga foofu ca foyer des jeunes ci amokat bu Géejawaay ñuy wax ne nag ñoom ñooñee bokk na ci la ñuy ñaawlu mooy quota bi nga xam ne administration ba daal dina koy fixé ñu bokk nag ñu jàpp ne nag dafa nekk en complicité ak ministre enseignement supérieur bi nga xam ne li ñuy wax mooy seen master boobule nañu ko tabbee baaxul waaye it bokk na ci nag wax nañu ne dañoo def sax violation flagrante bu bu décret 2011 05 bu 30 mars 2011 bi nga xam ne nag defa bokk ci organisation système LMD waaye ñoom nag ñi ngi wax ne xiifal bi pare ñu benn yoon pour a bàyyi ko naam sax ña nga ci joxoñ baaraamu tuuma Cheikh Omar Anne mi ñu dénk ministre enseignement supérieur ak Moussa Lo ma nga xam ne mooy coordonnateur bu UVS ñooñu ci ñoom nag am na ay kaddu yu ñu denk lii la doon. asalaamaaleykum maa ngi tudd Sophie étudiant la université virtuelle promotion 5. maa ngi wax au nom de tous les étudiants non sélectionnés pour la promotion cinq en tant que de la faim démb ak tey ñu gis ne am na seen ay camarades yoo xam ne évacué ngeen ñaata ngeen nekkoon au total ba ngeen di commencé. au total ba ñuy commencé bon on était au nombre de cinquante mais euh, ak ñenn ñi. ak transport bi moo tax tey daanaka ñëpp mënuñoo ñëwaat parce que tey umpaloo leen y a une grève de transport waay loolu moo tax mais tey moom vraiment la situation est déplorable gis nañ ni suñu camarades étudiants yoo xamante ni tey ñoom lañ bokkal komba bi ñu daanu ci kii bi ba sapeur mu ngi noonu di leen yóbbu mu nekk loo xam ne nag métti na ci xol trop métti na mais nag on n'a pas le lii rek lañ mën a def parce on a comme on a fait tous les moyens on a utilisé tous les moyens pour arriver si fii nii mais malheureusement euh, ça n'a pas abouti moo tax ñun tey ñu ni nañu jël kii bi parce que c'était la seule option qui nous restait soit un peu ci motif bi nga xam ne moo tax ngeen entamé grève de la faim. voilà ñun dañoo entamé grève de la faim parce que suñu sélection massée déjà dafa am problème yu bëri lu si làqu mel na ni euh, administration UVS dañoo jékki-jékki rek nañu dañ leen di sélectionné masse comme ça mësul am UVS c'est la premier fois muy am UVS léegi ñun buñ ñu ko waxee. dañoo commencé sélectionné rek wax ñu ko te yaakaar naa ne kër boo fa nekkee même boo nekkee borom kër ga tey looy jël da ngaa war a waxtaan ak ñi ca kër ga mais malheureusement ça n'a pas été ba pare ñun suñu lu ñu gën a métti moom mooy sélection yi constaté nañ ne dafa am euh, ay njuuj njaaj yu bari parce que da ngay imaginer étudiant boo xam ne mësu redoubler euh, ñu bàyyi ko fi ba pare sélectionné étudiant yoo xamante ne ay redoublant lañ xam nga ne loolu tamit neexul si xol wala ngay gis say camarades yu nga xamante ne seen moyen yi yéen a doon jàng seen moyen yi dañoo ndaw yow sa moyen normal ba pare yow nga gis ñu sélectionné ko là on se pose la pro les problèmes à savoir lan mooy exactement seen critères yu ñu lal voilà. est-ce que seen autorité yi mun ñëw nañu nemmeeku ak yéen wala ñu waxtaan ak yéen pour xool yan terrain d'entente ngeen voilà euh, autorité UVS yi yónnee nañ fi yónnee nañ fi indi nañ ay négociations comme quoi ils vont euh, ils vont nous aider sur l'insertion yeneen yu ni mel mais malheureusement ñun laajuñu insertion xam nga lan la ñuy laaj ñun jàng la ñuy laaj dafa notre lutte et tellement noble parce que gisoo benn étudiant buy grève naan la dama bëgg a jàng ñun rek ñooy grève tey di la wax ne dañoo bëgg a jàng li laa war a suuluñ nañ ñu bàyyi ñun ñu jàng parce que ñun master bi bu la bu ñu leeroon ni ça on le mérite pas ñun tey duñu fi taxaw sax di ko kaas mais dafa fekk ne dañ koo mérité ba mu leer ñu ne mérité nañ ko waaw dara taxul eno mbuur laa jóge ñëw fii te c'est pas pour un rien du tout ay xale jigéen di ñëw di tëdd fii nii dans des situation comme ça tu vois mais dafa dañoo war a teg Euh, dans les normes ñun ñu jàng bu ñu bëggee dëkk bi réussir bu fekkee loolu la euh, Macky la bëgg émergence il faut que mu commencer ci jàng bi mënuñoo wax émergence université bu de cinquante mille étudiants on n'arrive même pas à sélectionner deux mille étudiants kese nga xam ne c'est quatre pour cent de la de de de la kii de des étudiants de l'UVS quatre pour cent kese lañ ñun ñuy laajte master bi li laa war a suuri nañu sélectionner ñu dem jàng ñun lu ñuy laaj bëriwul instant yi dañoo tardé master bi trois ans lañ ko waroon def on l'a fait quatre ans te normalement waruñu ko woon def trois ans mais muñ nañ ko fi ba ñu paree nag ñu ne ñu yéen du ngeen fi defee master loolu pour la. léegi lan ngeen fas def de la faim yenn euh, camarades yi évacué nañ leen yéen ñi fi des lan ngeen fas yéene def. dem ba ci on va on ira jusqu'au bout fu mu nekk nii dañuy dem ba sës parce que gis nga ñu même ñun ñëpp bu ñuy deewi sax nañ dee une bonne fois pour tout ñu xam ne dee nañ pour un cause noble. li ñuy kaas ni dañoo xam ne ça nous revient de droit te dañu ko war a jox ba mu mat sëkk wala ñun duñ ci arrière yota euh, je pense que ñun IVS dañoo waroon a avertir avant euh, parce que bi suñu résultat définitif yi génnee ñu defal ñu admis en masse je pense que ci la ñu indil ay sélection critères euh, par critère n'est-ce pas ay quotas et cetera et cetera presque deux semaines après nos résultats définitifs euh, ma gis ne par exemple su fekkee par exemple da nga nekk say étudiant bu fekkee loi bu bees boo xam ne amu fa woon dafaa ñëw euh, mieux vaut que nga teel leen a informer parce que p une ba P4 kenn sélectionné wu leen par quota kenn sélectionné wu leen aussi par critère ñoom ñëpp dañ leen a bàyyi ñu jàll. ñun bu fekkoon dañ ko teg ci normal bu doon doon lenteur administrative je pense que actuellement ñoo ngi nekk suñ masse de n'est-ce pas euh, par lenteur administrative on a perdu euh, un mois un an. un un à huit mois n'est-ce pas kon je pense que loolu ñu demander ñu ñu ñu indemniser ñu ou bien ñu dédommager ñu mais tout simplement on demande de continuer nos études oui c'est ça l'essentiel. grève de la faim bi illimité da ngeen koy continuer ba kañ. Euh, grève de la faim bi n'est-ce pas c'est illimité nest pas dañ koy continuer ba lu luñ ci am jël. parce que bu jëree suñuy bakkan sax n'est-ce ñun pare nañ pour joxe ko n'est-ce pas pour défendre cause bi euh, lu fi dal kenn tamit les principaux responsables c'est le coordonnateur Moussa Lo euh, le ministre Cheikh Omar Anne et le président de la République, monsieur Macky Sall, nest On prend témoin euh, l'opinion publique, euh, l'opinion nationale du moins et l'opinion internationale, nest ñu xam ne fii lu fi dal kenn rek n'est-ce pas ñoom ñoo nekk les principaux responsables n'est-ce parce que lii ñuy def nii ñun ñi nga xam ne ñoo nekk étudiants yi ñu war ñoo sélectionné yëgaluñ ñu def ñu dañoo xëy xëy rek def lu leen neex en même temps critère yi nga xam ne ñoom moom lañ teg sax ñoom reconnaître que nañu am na ay erreur am na ay failles yu bari yoo yu ci nekk yoo xam ne ñoom sax maîtriser ñu ko après lañ comprendre n'est-ce pas nag n'est-ce ñoom dinañ ko xoolaat parce que c'est à revoir wax nañ ñu ko tey jii nii aussi euh, kon je pense que euh, li ñu war a def xam nañ ne lu baree bari. erreur yu bari mi ngi ci biir li ñu war a def mooy kon ñu fexe ñun ñi nga xam ne actuellement dañoo toll ci sélection ñu sélectionner tous les étudiants ñu bàyyi leen ñu dem euh, pro yeneen promo yi nga xam ne dañuy ñëw ñu toog expliquer leen wax leen ne leen carrément léegi dañuy imposer quota ci université virtuelle du Sénégal en même temps les critères su ko defee booy préparé wu n'est-ce pas parce que y a des étudiants yoo xam ne dem nañ deux fois trois fois quatre fois rattrapage ñu sélectionné leen tey am na étudiants yoo xam ne ni n'est-ce pas mësuñu dem rattrapage te kenn sélectionné leen ñoom xam nañ ne loolu faay la benn parce que tey bu fekkee man ak yow ñoo defandoo examen normal gestion normale n'est-ce pas ma am moyenne de 10 am 30 yow nga am par exemple une moyenne de 8 ou bien 9 am 8 crédits bien 0 euh, crédit je pense que boo defee rattrapage mën nga am une moyenne de 12 ci session de rattrapage n'est-ce pas euh, léegi ñoom ñëpp loolu lépp n'est-ce pas prêter ñu ci attention n'est-ce pas après lañ lañ xam ne lii nii c'est pas normal parce que ce matin ñëw nañ fi expliquer ñu loolu n'est-ce pas mais ñoom nu ñu koy défendre sax critères yi ñu teg yàlla xam na ne des na pour ñoom. bon maa ngi tudd Alioune Badara Faye euh, étudiant en multimédia internet et communication je suis de la promotion cinq non admis. mi moo bi. waaw bon dara warul ko lu dul euh, dañoo bëgg a xañ suñu droit dañoo koo bëgg a privé. kenn bëgguñu ko privé lu dul le président monsieur Macky Sall le ministre de l'enseignement supérieur monsieur Cheikh Omar Agne et monsieur Moussa Lo le coordinateur bon voilà parce que mënoo ñëw euh, depuis 2017 jusqu'à 2021 ñun ñu ngi au niveau de l'UVS trois ans licence moom lañ ko waroon def et on l'a fait euh, pendant quatre ans huit mois ce qui est anormal et ñun di euh, xeexutuñu retard boobu noonu bon parce que des lenteurs on en a retrouve euh, de partout mais li nga xamante ne ni moom la xeex c'est parce que dañoo ñëw euh, ba suñu licence jeex ñu war ñoo sélectionner master te suñu sélectionner master bi remplir nañ tous les critères demandés yi nga xamante ne ni mooy les cent quatre vingt crédits voilà et defe naa ne loolu la ñuy laaj léegi nag sur ce ñun ñëpp matal nañ ko et rawatina yow euh, la nga ne tu es au tu es la deuxième position au niveau national yow mënoo encadrer deux euh, plus de 2000 étudiants vraiment ñun loolu mootuñ si lu bëri quoi en fait sur ce nag ñun lañ bëgg a sacrifier et ñun ce que nous demandons euh, n'est pas assez euh, nous partie des prix mérité voilà quoi su fekkente ne am na ñu mérité ñun la ndax ñun fii lañ faytee fii lañ faytee euh, suñu 2017 ba léegi. donc ñoom bu ñu amul tey yërmande ñun ñu taxaw fii di leen laaj ne carrément ñun dañoo bëgg a jàng on revendique notre master ñoom vraiment war nañ war a mën a évacuer franchement. est-ce que vous pensez que ne grève de la bi moom mooy solution. Euh, euh, euh, c'est-à-dire que li mi ngi commencé mois d'août depuis mois d'août lañ génneeg seen communiqué loo xamante ne nii ñoom dañoo waroon teel aviser ñoom ñu ngi ko génne depuis mois d'août nee ñu carrément seen sélection master se se fera par quota. comme si que voilà quoi léegi ñoom dañuy def euh, des tontines dañuy jël ji fii jaafa si ku mu tombé rek après bon voilà yooyu dem wala ñoom noonu lañ ko doxalee yow loo xamante ne ni ñun dañu ko waroon a teel a wax et on va s'y préparer mais ils ne pas fait ñu ñëw imposer ko ne bon voilà ce n'est pas de notre ressort ça vient du ministre ñun mu ñu si dara donc nii lay demee nii lay demee nii lay demee comme ça léegi nag si lañ commencé di bind benn yoon lañ rencontré monsieur le coordonnateur Euh, di bind euh, di ay mail di envoyé message di bind ay mémorandum lépp def nañ ko voie pacifique parce que tey suñu bëggoon a yàq tey yàq nañ bu yàgg mais defuñu ko ndax euh, te UVS yëpp au niveau national boo demee lépp ay vitre donc ñun bu ñu bëggoon a yàq def nañ ko bu yàgg te après bon du mujj fenn mais ñun choisiruñ loolu on a choisi la voie pacifique juste pour wote si jàmm mais à tout moment bu ñu leen saisiree on n'aura pas de réponse léegi nag cause pour la laquelle Euh, ce ultimatum là ñu jël ko et incha bi on ira jusqu'au bout franchement parler. Euh, grève de la faim bi est-ce que am nga xam ne yéen a koy waajal. bon bi ce sera illimité et defe naa ne man mi tamit euh, su ma fi desee ñoom ils seront les responsables monsieur Macky Sall monsieur le monsieur le ministre Cheikh Oumar Anne et monsieur Moussa Lo pare quoi pour tayla fi suñu bakkan parce que lii nii lu ñu mérité la ñun dañ ko fayete ñaanuñu ñu leen de. bu fekkente ñun euh, bokkuñu ci ñi nga xamante ay moyenne neuf moyenne huit là ñun dañu fi toog mais on fait partie euh, des meilleurs et là on nous a laissé di di dem di def yeneen yoo xamante ne nii bul comprendre voilà. moo tax nga yaakaar ne dinañ leen sacrifier yéen ñi am moyen ci kaw ñi nga xam ne seen moyenne yi baaxul. bon parce que defe naa ni bu fekkente ne euh, di ay cota quand on dit euh, les quotas on choisit les meilleurs parmi les meilleurs et université bu si nekk nii loolu la ñaan yàlla di choisir les meilleurs parmi les meilleurs et les autres on les retire et tey bu fekkee ne tey ay sélection am na ñi nga xamante ils sont assidus ñoom ils ont respecté euh, toutes les choses demandées ñooñu nga war ba pare léegi rattrapage tey bu amee tey mooy double sens après nag là les redoublants doo ko ñëw mais tey ñi nga xamante ne nii ñoom jàng nañ seen licence 1 licence te euh, avec brio léegi yow la nga jël teg leen ne ba pare di jël ñeneen ñoo xamante ne donc ñun euh, euh, de où va notre pays franchement parler on n'en sait plus rien et on est désolé aussi on est désolé de ce système franchement parler neexul si xol des fois bu ñuy wax sax da ngay gis ne carrément mais mooy loolu mais bon yàlla bëri na la ça moom bon dañoo pare pour tay defi suñu bakkan voilà merci beaucoup à vous aussi